ginnaaw plainte bi danañu amal ab doxam ñaxtu national maanaam marche nationale ndax ñoom jigéen ñi benn bokk yaakaar yi dañoo gis ne dañu leen toroxal waaye nag yéen a kaay gi dalee si ko bëri na ñoo xam ne ñaawlu bu baax a baax doxalinu Massata Samba maanaam ci dóor yi nga xam ne dóor na ko Aminata Njiipe ku ci mel ni Aminata Touré ñaawlu na ko Birahim Seck ñaawlu na ko Boris Diop ñaawlu na ko am na ñeneen tamit ñoo xam ne naqaru nañ ko ba fa naqarlu yam yéen a la sa ñu xëy fekk fa jigéen ñi nga xam ne tamit ñoo bokk ci coalition Yewwi Askan Wi ñoom ni ki démb jànn nañu ak taskadu xabaar yi waaye lu ñu yëkkul Amy Ndiaye Gniby dañu ko fàtte nee nañu marionnette la dañu koy digal maanaam muy saaga dañu ko saagaloo te Amy Ndiaye Gniby moom i maanaam intérêt yi boppam rek moo ko tax a jóg Awa Gueye mi bokk ci Benno Bokk Yaakaar nekk député ci biir surnal bii de L'As nee na ñoom jigéen ñi li nga xam ne moom la ñuy xaar ci njiitul assemblée nationale maanaam muy jël ay mesures yoo xam ne danañu jël ñaari député yi man leen a yóbbu fa mbaxana doone benn yéen a kaay gi de L'As Thérèse Faye nee na ci biir assemblée nationale li mu fi gis mooy ay criminel ak ay violeur yéen kaay gi de L'Info ba ñu xëy fekk fa soxna ba mu bokk ci coalition Yewwi Askan Wi nee na jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar dañu leen di instrumentaliser di leen saagaloo ay nit te loole nag lu ñaaw la yéen kay gi di fak soppale ñu xëy fekk fa may mun a busu coalition Yewwi Askan Wi nee na jigéen ñi nga xam ne ñoo bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo war a xoolaat seen bopp te nag lànk maanaam ñu leen di jëfandikoo di leen di instrumentaliser ñuy nekk foofe nekk ay saagakat ba tey ci biir journal bi moom may mun a busu nee na njiitul assemblée nationale bu defoon li mu war a def maanaam ñu yegg fi fii yéen kaay gi ñu xëy fekk fa Oulimata Guiro moom tam ci coalition Yewwi Askan Wi nee na Amy mi maanaam nitu intérêt la yéen kaay gi de Libération nee na en tout cas daal li gudd gàtt ak li am ba desal mooy defante bi ma ngi mel ni tulleeg male ci biir Assemblée nationale waaye nag rawatina jigéen ñi Bokk Yaakaar yi ak jigéen ñi Askan Wi jamono ji ñoo ngi càb dagga sante bu mat sëkk yéen kaay gi de enquête bàyyi mbir moomee wax ci lu jëm ci wàllum bi nee na lu ëpp ñeenti tonnes yi drogue yoo xam ne teg nañu ko loxo ci waaxu Sénégal yéen kaay de la sa nee na Serigne Bassirou Gueye mi nga xam ne jamono moo fi nekkoon procureur de la république bu Sénégal daan nañu koy nommé mu jiite OFNAC OFNAC di kuréel goo xam ne dafay xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllum guerre moo fa wuta Seynabou Ndiaye Diakhaté yéen kaay gi du l'observateur nee na mbiri ñaari gendarme yi ba léegi pënd bi wureegu la coow li des na ndax Didier Badji mi nga xam ne ba léegi gisaguñu ko ak njabootam wax nañu nee nañu Didier Badji du ab traître te nag ñoom bëgguñoo dégg benn yoon ñu ñëw fii di leen di làkk ay daada naan dafa xaru wala dafa disparition volontaire kaay gi di 24 heures nee na mbir mi ba léegi jeexagul ndax njabootug Fulbert Sambou ñoom tim nee nañu danañu porte plainte ndax fan yi ñu génn dañoo gis koo xam ne ci ab télé dañ ko faa invité woon muy wax ne ñaari gendarme yi dañu leen a rey yéene kaay gi di libération xëy di ñu xibaar naan ñu mbiri Ousmane Sonko Adji Sarr ba léegi tamit jeexagul pënd ba wureeku la njaaw ma nga fay wéy di da su xam bi na ndax ñi nga xam ne ñooy layel Ousmane Sonko di avocat mi ñoom nag nee nañu juróom benn fan ci weeru octobre dañoo bindoon doyen de juge ngir nag mu daal di dégloo ki nga xam ne mooy Mamour Diallo ak Abdoulaye Mbaye MC mii nga xam ne nee na yor na ay audio Adji Sarr audio yoo xam ne Adji Sarr moo say wax ne mbir mi complot la te nag avocat Ousmane Sonko yi ñoom nee nañu li tax ñu war a déglu Mamour Diallo docteur Alfouseyni Gaye mi nga xam ne moo defoon rapport médical bi kero bi ko doyen de juge woowee déglu ko da koo waxoon leer nee woon na ko ñetti fan ci weeru février atum 2021 ci suba si Mamour Diallo ak maître Sow woo nañ ma ay yoon yoon di ma laaj ba xam def naa rapport médical bi ak lan moo nekk ci biir rapport médical bi loole moo tax avocat Ousmane wala loxo ma nga ca biira kon nag dañu ko war a dégloo bu ñu bëggee mbir mi yépp daal di leer yéen gi di Rewmi Quotidien xëy seeq waxtaan wu yaatu ak Vilchange Gàkko mii nga xam ne aw waykat la nee ba muy commencé way boobee fukki at ak ñeent la ma wax na tamit lan moo tax muy way yàlla nee na pour féexal yi la wax na style musical bi nga xam ne moom lay def nee na tamit dafa am autorisation ngir def musique nee na 2023 ne mooy xaar a